السلام عليكم ورحمة الله شيخ تيليسبكتاتور انترنت يني سيتان بير سينيغال اكشن ميديا خانا نين خامني تاي موم ا نين لو بغ ما انترفيو لا ماغي نيو خانا نين خامني تاي موم نيغي بير داليفور واو في دك نيهي ها داليفور بيغا خامتاني ما شاء الله غيس نين خالي ني ناني ديف واي نك تاي لولو اندي وون في دان في نيو غير وقتاني اكтуаلتي بوليتيك ندخ كات سونو يايو باخ كي نيوم نينا نو نيوم فاو ني سان سين كادو خانا ني دادي دخونتو ريك ñàkkul ni ñoom waaw ñooñ xam daal. asalaamaaleykum wa rahmatulah yaay booy jaar naa la ah yaa yaa ngi ci peex mi nag waaw ñun la waa Sénégal Action Média tey moom dañ leen seet woon. bëgg nag xam yaay sa gis-gis par rapport à nomination Idrissa Seck bi nga dégg dem Idi fekki na Macky Sall yaay moom loolu moom lu ci sa xalaat. <laughs> gannaaw bu si yàlla sant yonent bi. sànq may reede. waa gis nga ko ah daa reelu daal dañ ciy wax suñu xalaat rek waaye wax dëgg yàlla lañ ci xam bëriwul de. àndoo ci de ndax dama laa wax rek nga reetaan. waa damay reede waaye waxuma ànduma ci de. ah yaay yaay Idi neex naa jàppale de Idi ak comme ñoom ñëpp daal liggéeyee leen tax a jóg. <laughs> ah nañ leen bàyyi rek ñu liggéey. gisoo ni njuñ njaaj da see wax dëgg yàlla gisuma ko de. Ah. yow daal bëggoo ma wax loolu loo bëggul wax jaajëf yaay booy kon ba beneen yoon incha allah ñu daal di doxoon. yaay booy la. yaare bi ñu bokk. yaay booy euh, li nga dégg ci euh, Idrissa Seck fekk dina Macky Sall moom ban jàngat nga ci def. kontaan ci lool. yaay kontaan ndax lan. ndax Macky liggéeykat da tey day liggéey te Idrissa Seck tamit day liggéey ñoom suñu lëkkaloo day neex rek. waaye yaay dëkk bi nga dégg ñu naan dëkk bi daa makki Macky Idrissa Seck jaay na ngorom nag. Mackiwul jaayul ngorom de dafa bëgg liggéey rek tey liggéey. yaay yow mii yow est-ce que Idi woowu la wala Macky woo. mosuma woo ndax maa ngi feebar toog fii. waaw waaw yaay nag justement yaay kon Idrissa Seck est-ce que mi ngi mi ngi mi ngi jàppale sunu yaay booy. mi ngay jàpp mi ngi soog a dugg di sax di. yaay yaay ñoom ñaar ñi ngi fiy bëgg yàgg de. ah yàgguñu fi de yàgguñu fi ñu ngi def lu baax di wax lu baax loolu de laa leen xamal. gis nga ni mi ngi jàppale sunu yaay booy di jàppale jigéen. waaw waaw ñu jàppale de saa ñu xëyee am sunu wërsëg. te yaay yaa ngi naan da nga feebar nii xam nga nii waroon nga am prise en charge. venant de l'état pare am naa ko ba pare. Ah, waaw sant yàlla rek. yaa politicien bu mag nga jaajëf. <laughs> Euh, papa ñu gis ni ku euh, Sénégal amoon yaakaar loolu muy Idrissa Seck euh, tey kat dem na wuy ji gouvernement wuy ji na Macky Sall ban jàngat nga ci def. Sénégal dafa ci Idi. ah ci li ñenn ñi yaakaar. ah, ah kon de dañu juyoo am nañu ah? yaakaarul Idi dara. ah waay <laughs> Idi. kon yow yefi yi bett la. kay Idi kay pour mu taraayal loolu problème Idi. Idi moom boppam rek bokkam boppam rek. kon yow bi nit ñi daan wax naan Idrissa sek opposant la kon yow mosoo koo gëm ak ak papa sax yow foo teg foo teg sa kii boobu. dama ko xam man maa ngi dugg PDS di depuis 1974 Abdoulaye Wade bu mu formé PDS ci laa dugg PDS benn ko Macky gagné ma ñëw fekk ci Macky mais Idriss doon nañu def ak def nañu ak moom congrès du benn du ñaar du ñett. pala yu mu doon formel Abdoulaye gisoon naa ko xamoon naa ko moo tax gomuma ko ci dara Idi man gomuma ko. kon yow Idi jàppee nga ko warkat papa. évidemment Sénégal yëpp loolu la ko jàppee ala dengu dem bu dégluwuloo rajo hmm? ah way yow dem bu dégluwuloo nga ànd ci ak li Cheikh Yérim Seck wax. évidemment ñeneen wax. man itam su ma amoo rajo ma wax ko. <laughs> kon baax na papa ñu ngi lay jaajëfal. <laughs> waaw jërëjëf <laughs> rafetlu sa xalaat yaay booy. badda a ah, jamtal selli eh, waa yaay boy noo gisee eh, Idrissa Seck fecc eh, mu nekkoon ci ujje politique gi tey mu fekk di gouvernement ah xanaa gouvernement bi moo ko xacc bu dul loolu kay moom moom bokkul foofu dang cee ànd wala ah ànduma de boo sañoon mu des bu ma sañee mu jóg am na kat ñu ne ñu ne daa daa daa fekk si rek ngir jàppale réew ah, wax dëgg yàlla jàppale réew bi su fekkente ne taxaw na taxaw loolu du bol bolgiti euh, luwaay moom moo njëkk a yàq luwa jërëjëf yaa booy ñu ngi rafetlu sa xalaat bu baax a baax jaajëf asalaamaaleykum euh, euh, kilifa gi ziar nañ la yàlla yàlla nangu waa Sénégal Action Média ñoo fi ñëw tey waa xanaa di la laaj ban jàngat nga def ci nomination Idrissa Seck fekk bi mu fekk ji Macky Sall te kenn xaaru ko woon Assalamu D'abord, je me présente, Monsieur Sam, professeur d'anglais. J'habite à Dalifort et je suis un jeune de la coalition présidentielle. Je travaille avec la Coalition nationale avec euh, le coordinateur Moussa Sow. Bon, par rapport à la question, nous avons une question stratégique. Je dis que nous avons une Les Sénégalais, si nous avons magnifier ou rafetlu lolu lu tax ñu koy rafetlu alors que Idrissa Seck ñëpp nee na daa jaay ngorom moom laa dégg ñuy wax depuis un certain temps ñu ngi koy wax depuis l'annonce des résultats c'est ce qu'ils disent d'Idriss Seck Idriss dafa jaay ngorom Idriss dafa dem fekk Macky Sall dem nañ sax ba Idriss est-ce que transhumé wul mais justement parce que opposant la woon non ce que je réfute bien vrai que opposant la mais au Sénégal dañoo am habitude bu nga xamante les politiciens ñoom ñëpp dañ naan Sénégal moo leen ñor taxaw ci kaw scène bi yëkkati seen loxo yuuxu haut et fort buñ la fayalee président nga mëna liggéey buñ la le président tu pars chez toi tu restes à côté nga dem gérer say bopp wala sax duñ la mëna bolé ci gouvernement bi le président de l'ENWO woo dialogue national début pandémie nous ñu ciy masawu ñëpp ñi nga xamante ni nañ ci muy coronavirus bi daf leen nous étions ñëpp ñu toog ñu desaay waxtaan def confirmation donc lii nii dafa firndeel ni Sénégal politique am mu évoluer alors que Idriss Seck a dafa prouver moom bu mu président de la euh, du conseil économique euh, du conseil économique social et environnemental ci a gëm ni Idriss est un homme politique en dehors de ses ambitions politiques bëgg a président tey au moins il est prêt de taxaw na pour travailler aux côtés du président de la République en tant qu'opposant parce que Idrissa neewul dafa dafa bi il dit qu'il est toujours président du parti Rewmi kon kooku noonu fas yéene na le président de la République xamuñu ci une échéance xamuñu nan lay demeewaat

mu ci lu nga peut-être il aura encore la confiance des Sénégalais ba nga xamante ni bu présenté waatee dina peut-être mën am dara mais là on travaille avec le président de la République te Idriss Seck nous mu def ci rejoindre le rejoindre président par rapport à liggéey bii par rapport à unifier donc le Sénégal par rapport à jàmm gën Sénégal partout dans le Sénégal te est technocrate la bu kenn naatablewul donc loolu wax dëgg yàlla rafetlu nagn ko trop trop. jeuf kilifa gi euh, ñi ngi rafetlu sa sa sa intervention. waaye nag duñ fa yam ba tey rek ñu ngi ci doxantu bi waaw kilifa gi ziar nan la. waaw doon leen ziar alhamdulilah naka Njaay mi. waaw Njaay maa ngi nii waaw. mbaa lépp a ngi dox lépp a ngi dox alhamdulilah. yow yaa ngi ci dox yaa ngi ci naaj bu tàng bi sonn loolu ñenn ñi nekk ci clim yi noo gisee mm, Idrissa Seck fekk gi mu fekk Macky Sall euh, gën a delluwaat ci clim yam nekkoon. waaw Idrissa Seck dafa nekk koo xamante ni dañ koo defoon kilifa kon bi muy xëccoo deuxième kii amul sax deuxième tour mais bi muy xëccoog Macky Sall jamono boobu ñu ne Idy rek moo fi war a doon président te moo jiitu it ña fa nekkoon ñëpp moo leen jiitu loolu mooy première wàcce boppam deuxièmement nag Macky Sall daa war a liggéey réew mi defal réew mi man Macky dama koo fal def ko sama président. sama kon yow yaa fal Macky. waaw sama tànk damm ah sama doomu baayo ko damm boobu ba léegi wax naa fu ne mais dégguma ci dara. fii lay leere biir Sénégal Action Média fii lay leere police bu ne convoqué naa fa def naa fa lu ne mënuma ko teg bët mënuma fayu te nit ki bu amee lu mu gënal nit du ko gaañ di rëcc te xanaa dëkk bi amul sécurité ma wax ñu fi indi ay Idrissa Seck dañ koy booleeg maki Sall gis nga Idrissa na mu sàcce woon xaalisu góor ga Ablaye Wade soo moytuwul lu raw loolu dana am fii Sénégal ma ne réew mi li fi nekk buñ ko président yi nañ ko liggéey suñ ko mënta liggéey ñun askanu public bi nañ jog liggéeyal ko suñu bopp ëpp ñu ñu fulaak fayda nag sama tànk bii damm nag su suñ ko wul man sam bopp danaa wut samay armu beleene sama bopp bu ma demee xarek ñoom rey leen wala ñu rey ma foofu nag laa yem ak ñeen wasalaam Idrissa nag fu mu ànd ak Macky Sall réew mooma dana nax kilifa gi waaw yoon nee na nul ne peut se faire justice soi-même bi Sénégal Action Média fi la ñuy lay defalee plaidoyer bi sa tànk bi ñu damm lépp dina leeree ci biir Sénégal Action Média. Euh, Sénégal euh, chers euh, téléspectateurs ak internautes yi comme ni ngeen ko gisee tey tey moom mën na ne Sam TV fii la.

teewlu gi ngeen ñuy teewlu saa su ne en ah, kontaan nañu ci abonné yi j'aime yi macha allah partage yi gis nañu lépp ah di leen xamal ni vraiment euh, Sam TV gaynde de l'actualité yéen la fi nekkal yéen askan wi yéen peuple sénégalais bi mu leen leen ni nag xaar leen ñu semaine prochaine ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen yi édition euh, te boobaa dinañ dalalaat ñeneen te saa su ne da ngeen di gën a kontaan kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal wér ak talak fekkee ba boobu jaajëf